asalaamaaleykum bokk jullit ak bokk taalibe yi jot nañu ndigal ci sëriñ Mountakha Mbacké xalif général des mourides yàlla na fa yàggul loolu te ànd ak wér jëm nag ca bis bi ñëpp doon xaar fu nu jëm ca kër lu fàttali ko jullit nag mooy vingt-quatrième édition ndaw lu ñu ko defee fan nag fii ci jàmmalaay ci Yoff xam ngeen ni nag ñaar fekk fan ya la nu jagleel maam Cheikh Fall bal mu waaye bala maa sore ma jox kenn koo xam ne ñëpp xam nañ ko ci réew ci liggéey sëñ Tuubaa muy jëriñ ma Cheikh Makhtar Diouf aouzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim jërëjëf sëñ Tuubaa niñ ko waxee rek bis bi suñu bis bu màgg bi ci ndakaaru mi ngi ñëw muy le 21 septembre le 20 ak le 21 loolu nag ñu ngi ko jëlee ci ndigalu sëñ taxa Bachir Mbacke yàlla na fi yàgg tiwee mu nuyu fonk bis bi màggal ko pexe ba àdduna bépp rawatina nag Sénégal ak Afrique xam bis bi li ko war muy julli géej gi sëñ bu mag bi julli woon ci océan Atlantique moom lañu woo ñëpp woo nañ umma islamique bi yëpp rawatina nag suñu mbokk murit yëpp woo ci bis fas yéene yëkkati baatu yàlla ca kaw ba ñëpp xam sëñ bi lu mu ñu defal njariñ njariñ muy njariñal julli ca waxtu ba moo waraloon mu julli ci géej googu asalaamaaleykum wa rahmatullah Euh, cheikh bi euh, li nga xam ne euh, laa ci mooy mbiru thème bi maanaam loolu ñuy wax solo su waxtaan nga xam ne jàpp nañ ren ne moom la ñuy waxtaan ak presse bi ak àdduna bëgg nañ mu yaatu yaatu lool tarkal la niñ ko niñ ko të tërale mooy mooy ci wolof dama koy wax ci tubaab ba pare wax ci wolof tubaab mooy l'apport du Mourit dans le développement économique, social, culturel, universel. maanaam ci wolof mooy njariñu murit maanaam li ñu murit indi ci wàllu koom-koom ci wàllu dundin ak ci wàllu caada ci àdduna bi eh, te ñu ngi ciy séentu ay borom xam-xam yu mag ay universitaire incha allah rabi ñu ci bëri signalé nañ pour ñu jéem a mu doon thème boo xam ne dañuy débattre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 jigéen ñi ñoom ñoo yor berne yi ñoo yor togg yi léegi nag dañuy wax daayira yi nañu teel a ñëw ci togg yi di woo ñëpp wasalaam. gannaaw cérémonie bi nag guddi gi xam ngeen daana ma njàngam xasida bu am solo ak ay conférence waaye dégg ngeen léegi thème bi l'apport du mouride dans le développement économique social culturel et universel ndax thème yu rëy nu ko ñëpp ñëw président Makhtar Diouf ak ñi nga àndal ñëpp ak waa kuréel bi ñi nga woo ñëpp bàyyiwu kenn nag yéen jàmm.